beaucoup m'intéresse parce que réforme yi yëpp c'est pour euh, Sénégal jëm kanam la d'accord mais euh, mun naa wax ci parti politique yi parce que parti politique yi. rationaliser les partis rationaliser bu daanoo boo def nag lu mais dafa am ay préalable parce que trois cent partis politiques yi mënoo wax ne que trois cent yëpp ñoom ñooy dem aux élections voilà mënoo wax tamit que trois cent yëpp. même seeni borom est-ce que ñoo ngi dund ba léegi non mais on se dit la vérité. mais bu dundul parti du pour pour. nettoyage quoi oui nettoyage d'abord. nettoyage et réformer. voilà d'abord d'abord nañu xool d'abord yan parti yoo ñoo fi nekk. Euh. c'est sûr que du ñu waxati 300. beaucoup moins parce que am na ñoo xam ne ba léegi voilà. d'autres partis quoi. moi j'en ai attends j'en ai vu même un. sama frère yi bi ñu ne dañoo joxe ay ay convocation di wër ay sièges parti suba ba jant. gis amuñu téléphone amuñu téléphone mais mais mais aussi aussi xam nga à l'ère de la digitalisation mais parti am siège loolu c'est anachronique. Mm-hmm. parti mën na dund du am siège. ah bon mais bien sûr. siège bi mais les, les gens les gens se réunissent dans les dans les groupes WhatsApp. Oui, les gens oui, oui, arrivent à faire des réunions Zoom. Non, tu pour connecter la diaspora ak seen ak seen base. pour connecter ku jógee Kaolack. di ñëw war a ñëw réunion siège bi ah. mënoon nañu mais télé bi dafa war mais euh, mais mais loolu dafa man man ce matin ce matin attends attends attends attends wax la non dama bëgg wax ni que il faut aussi mentalité évoluer parce que loolu rek du critère hmm. man ce matin nii ah, maa ngi yow 5 heures du matin 6 heures du matin joxe naa sama cours ba 11 heures ma ñëw fii à distance ba bas donc juste pour dire que mën nañu utiliser yooyu yëpp ah pour que pour que mu am plus de flexibilité ci parti politique mais mais ah, xaaral ma egg xaaral ma eggale xaaral béygale ci ci côté boobu loolu laay wax ci déjà ñu xool il faut faire le point sur le nombre de partis politiques yi nga xam ne ñoom ñooy fonctionner hmm. euh, su loolu weesoo nga xool léegi sur la démocratie interne hmm. moi j'ai publier publié un livre en en 2006 qui s'appelle démocratie alternance politique au Sénégal <coughs> mais loolu laa ci analyser la démocratie interne fii dafa am problème parce que amul alternance des fois à la tête des partis politiques le même leader il est là depuis très longtemps moom mooy dem moom ah, moom siège bi moom lépp lépp mooy mooy décider mooy mooy choisir ci lépp loolu nag bu demee ba yow nga nekk ci parti bi di fa liggéey am fa am fa ambition d'accord ba sa heure jot ñun la yow teg nañ la de côté jël ay mesures non conventionnelles utiliser ko écarter la yow nooy def da ngay bañ a amati ambition wala da ngay wala yoon may la nga dem créer sa parti bopp nga sa ambition nga jaarale ko foofu loolu mooy tax parti yi di bëri te boo xoolee euh, ñu ci bëri man mi nekkoon naa PDS moi j'étais le président des cadres du PDS en France nekk naa UGTEL ci étudiants yi maa fa créé UGTEL ak ay des jeunes évoluer foofu boo war a ñëw toll ci war a mën a nekk xëy na candidat au PDS ñu ne kan léegi c'est Karim <laughs> ils ont bouché l'horizon nooy def da ngay continuer topp si ginnaaw Karim wala da ngay dem wuti sa parti da wuti sa parti bu dee am nga compétence yoo xam ne danga ko yéene Sénégal donc il faut loolu ñu bàyyi ko il faut ñu créer ay primaires organiser affaires yi ba nga xam ne dina am ay courant sax ci biir nga xam ne doo génn d'accord ak leader bi pour ah mais c'est pareil mouvement bi mouvement yi mu ngi fonctionner comme parti bi non mouvement bi nu parti sauf que ñoom xëy na amuñu wutiwuñ récépissé wala du ñu am ay siège mais mouvement yi ma gis comme parti la ñu organisé woo tu vois donc euh, man pour man il faut ñu def loolu ba pare régler loolu ba pare après bu fekkee nag que xëy na day cher pour état muy organiser élection ay parti ay candidats yu bëri mun nañu wax ci constitution bi ah bu ci waxtaanee ba pare ñu ne léegi euh, cinq candidats mooy am mais cinq candidats yi dañuy jógee ci ay courants yow bu dee indépendant nga da ngay dem defi primaire ak les indépendants yaa ni indépendant nga y a d'autres indépendants comme toi nga dem defi sa primaire foofu nga inscrire foofu nga def primaire boo gañee indépendant yépp yow yaay candidat bu jógee ci courant indépendant yi bu dee bu dee libéral nga libéro yi ñu dajale leen yow nga dem defi foofu primaire socialiste yi ñu dajale leen ci vois bu ñu ko dajalee noonu regrouper ko mën nañu ñëw ba nga xam ne dina am vie politique nag bu dense parce que en tant que parti di nga participer di nga dem ci médias yi di nga truc tu vois ça c'est bien pour la démocratie mais pour dem élection il faut nga jaar ci filtre yooyu te boobaa sax parrainage du amati tu loolu laay wax ci parti politique